3 heures du matin daal lañ ñu woo wax ñu ko ñu ñëw ñu ñëwee ñu ak sapeur mi nekk mais avant sapeur ñëw affaire yi féete na ko rek quoi ndax boobu affaire bi dafa gaaw tàq tàq moom bu xasee bu jug rek non fi moom matériel yépp yàqu ak xaalis bu bëree bëree bëri benn matériel moom génn ci fii quatre places ñoo fi lakk places. mu metti na lool ndax wax dëgg yàlla jàkkaarloo sa alal mu yàqu ca ci dara metti na waaye tamit lépp dañ koy delloowaat ci loxo yàlla rek peut-être na dogal la bu war a ñëw dañ koy nangu metti na trop nag franchement metti na lool ku ni méttiwul loolu daf laa dalul mais tamit lépp dañ koy delloowaat ci loxo yàlla rek metti na trop nag franchement metti na lool ku ni méttiwul loolu daf laa dalul mais tamit lépp dañ koy delloowaat ci loxo yàlla rek mais tamit lépp dañ koy delloowaat ci loxo yàlla rek lépp dañ koy delloowaat ci loxo yàlla rek